campagne bi nga xam ne moo ñeer wàllum euh, présidentiel bi nag moom ma ngay wëy fukki kandaay juróom ñeent kuy nekk daal yaakaarkat sa jaar-jaar moo gën a fës ñoom nag ñi ngi ci Sénégal ñenn ñi nekk ci pegg ba am ñoo xam ne ñu ngi ci ruq-ruqaan bëgg rek dagaanu baata askan wi waaye yaakaar na ne kat naam la nga xam ne kat jiwoon nañ ko loolee sax daanu ko daal di yaa fexe ba daal di koy amaat ci askan wi. campagne électorale bi la ci gën a fës mooy wàllum ñàngaleem politique ak wàllum xibaar loo tukkee rek ci askan wi maanaam dund gënuy dund am na ñoo xam ne mënees na ko méngale dund ko yarayaan ba tax na ñu bëri daal góob bi nga xam ne kat ñu ngi koy yaakaar ci askan bi dañ koy xaarandi ci li nga xam ne daal def nañ ko ci jéego ñëpp rek teg seen bët ci li nga xam ne mooy donkaasi gi ba tax na ci li nga xam ay discours ci ay mitin ay caravane ay dem nemmeeku mën nañoo gëm ne kat ñii nga xam daal ñoom ñoo dagaanu ba askan wi lenn rek la ñu bëgg moo nekk seen xel fexe ba daal lii nga xam ne mooy ci wàllum koom ak la nga xam ne mooy bëgg-bëgg askan wi ñu mën koo saafara waaye tamit kontaan ci li nga xam ne mooy ci campagne bi am ñoo xam ne kat defuñu ko waaye tam foog ñu daal di xaar bi si ñëw ndax ñu bëri bëri ñu ngi ci teg seen gët. li nga xam tamit mooy laaj bi samp naam ci candidat yi ñu bëree bëri yaakaar ne daal ndax ñoom kat daanu am la nga xam ne moom lañ yaakaar ndax gis nañ ni wax nañu jëf nañu sol nañ seen dàll dem nañu fu ne ñu ngi koy yaakaar ci askan wi naam. waaye tam ci qualité programme yi ak ci li nga xam kat am solo gum am solo ak tontu la nga xam ne moom la ñu bëgg indi ci jafe-jafe askan wi loolu illa kon confiance bi nga xam ne candidat yi am nañ ko loolee nekk na facteur bu am solo coo xam ne kat daan ko xaar waaye tam confiance bi nga xam ne def nañ ko ci euh, li nga xam ne mooy électeurs yi ci wàllum politique ñu bëri moom la ñuy daal di ndéganiku Sénégal yi ñoom dañuy voté ci li nga xam ne kat am yaakaar maanaam seen ëllëg gën a naat gën a neex waaye dafa delluwaat tam ci candidat yi ñoom la nga xam ne mooy offre concrète maanaam ay offre yu baax yu wérte wóor yoo xam ne kat mënees na ko nangu kon saafara si mi ngi delluwaat ci bu fekkee ne kat bëgg nañu daal dagaadu ba sa askan wi foog ñu am yàqin ne lii nga xam moom la ñu digaat daañ ko def waaye tamit loolee du baax kon bu fekkee ne exercice bii tax na daal candidat yi ci li nga xam ne kat ñu ngi koy daldi ubbi suñu gët xool ko ñii wax ci wàllum koom ñii yaakaar askan wi la ñuy xaat ñoom yaatu na kon bu deful ndànk rek mbir mi moom jafe-jafe yi fi jóg waaye ñu gis ne tamit askan wi moom li nga xam mooy ay orientation wala seenum ëllëg moom moo ko soxal